asalaamualeykum asalaamualeykum wa rahmatullah euh, naruñ ci woon a wax naruñ ci woon a wax waaye foog nu wax ci yéen Sénégal da ngeen nekk Sénégal waaye buñ waxantee dëgg li xew ci àdduna bi xamu leen ko fi àdduna bi jëm xamu leen ko projet yi nga xam ne moom la nouvel ordre mondial am la mondialisation et la globalisation xamu leen ko tubaab yi ba ni nas ak di nocc cette mondialisation di créer organisation yooyu nga lépp ci satanique lañ ko jële yéen Sénégalais yi buñ bokkee waxante dëgg xamu leen ko ay tariixa ngeen xam ak lu ngeen de ba war seen morom wala nax ko waa fi tubaab bi wommat àdduna jëmee ko fa wump na leen noonu nag yàlla dogal sunu tànk gudd ñu ne ci àll bi organisation yu baree baree bari ñu di ca dem ànd ak ay nit ñoo xam ne dañuy défendre la cause de l'Afrique nu xam naka la ak numu te bu buñ waxee du ngeen nu déglu ab sëriñ ngeen di déglu wala politicien boo xam day fen pour jot seeni bakkan Cheikh Yérim Seck xam naa ko bi mu ñëwee fii New York fi la ma fekk li koy yëkkati woon dara wump ci embauchement la bëggoon Nations Unies te kenn jëlu ko affaire journalier la fa doon def daanaka ba ni ko Jeune Afrique jëlee ginnaaw ba mu bindee benn article bu neex yónnee ko Jeune Afrique impressionné leen ci lañ ko jël ñoom kon Cheikh Yérim mii li ma ci xam bari na Cheikh Yérim est un ouvrier de la mondialisation maanaam maanaam c'est c'est un c'est un un nervi un nervi de la mondialisation te du moom donc bari ci biir Sénégal am na ay xalif généraux yoo xam ne ñu ngi biir Sénégal ñiy liggéeyal les forces occultes ci la ñu nekk ci lañuy ñuy tedd ci la nekk waaye askan wi seen xel demu ca nii Sénégal mel ak nii Sénégal tëdde ak ñaata nit ñoo nekk Sénégal yi ki jullit Cheikh Yérim Seck jóg ne nous allons réduire les populations à sa propre expression comme la Macky Sall waxoon Cheikh Yérim tiitul de tiitul fi ko teg xam na ko nun kay noo xamut fi jëm noo xam lu ñuy wax noo xamul lu koy fajee te amuñu solo pour défendre suñu bopp waaye je vais réduire l'opposition à sa propre loolu la Macky Sall waxoon te def na ko def na ko benn opposant képp moo ni ci réew mi mooy Ousmane Sonko les forces occultes baat boobu mu ngi dugal Sénégal parce que le terrorisme du nord du Mali loolu lépp c'est artificiel tubaab bi ñoo ko créé te africain dañ ba trouvé leen weddi leen dañ leen a weddi moo tax français yi dugal baat boobu ñu naan les forces occultes jox ko capitaine Dièye mu indi ko Sénégal di ko promotre ak di ko publicité ak di ko siiwal dem na ba toog télévision moom may mën a ndur ñuy jooy ñuy jooy joom ñaar te naan les forces occultes dugg nañ ci réew mi dañuy fen le mot terrorisme moo soof africain yi le mot terroriste africain yi dañoo lànk ni dund ay terroriste moo tax ñu teg fee baat boobu créer les nervis ba pare jóge fa encore créer des forces occultes nga xam ay forces étrangères lañ yoo xam ne buñ duggee ci réew mi duñu am yërmande dañuy rey di damm ak di yàq ak les forces occultes ñaar boo koy xool ah organisme la boo xam ne yàgg na fi sax yàgg na fi jamono yi nga xam ne France mi ngi laaj indépendance am dañ ko utiliser les maçons ma mën utiliser contre l'église waa di ci fetal ak rey ba mu yàgg léegi la politique de la peur ñëw ci le terrorisme ñu naan le terroriste terrorisme mais comme terrorisme léegi doxatu ci ci ñoo échoué partout en Afrique ñu ne léegi kan jël ce que nous appelons les forces occultes wala les nervis moo tax Macky Sall dugg ci nervis yi nervi dañoo legal de nervi yi dañoo legal lii ñuy def dañ cee légal di ko def am seeni kayit di ko def war noon rey ban jeex tàkk nun doon nit ñoo xam ne daanaka ay xarañu tane dama ne seex Yérim xam naa ko Cheikh Yérim bu fekkoon ne Sénégal ay nit ngeen ay nit Cheikh Yérim war tëggeen ni ci télévision rappelu de Bilkos bi Bilkos bi amoon na show boo xam ne télévision àdduna bépp koy teg un multimilliardaire boo xam ne ku ne ko bëgg a xam man bil ko su ma xam ko muy financé ay école xale yi jàng man sax dama daan dem ci école yoo xam ne moo ko financé di ci waxtaan nañu histoire Afrique ana école yooyu sax dañ koo tëj nekk sa juróomi dërëm bu neer ci xale yi télévision bi doo ci dem xale yi di la gis ndax da ngay siifee yow da ngay siif Cheikh Yérim non seulement mi ngi ay série ay série théâtrale ngeen di ko dawal ci dëkk bi mu yàq boppu nit ñi mi ngi ci tele bi guddi suba ngoon di fen ak di wax ay waxam amul solo fii la taxaw ne banaa télévision bi bàyyi naa ko ndax damay toppatoo sama doom ndax moom it day siif comme day wër di siif yi jigéen may siif damay toog régler sama famille mais les forces occultes duñ ko bàyyi il contrat et ce contrat la mooy dem ci télévision bi toog wëlbati boppi nit ñi moo tax ñu yaatal ko ci may Maimouna Ndir télévision boobu nga xam ne may Maimouna Ndir moo ko séq ak Mame Mbaye Niang ak ñeneen ñoo xam ne ay franc-maçon lañ ci dëkk bi yéen Sénégal yeewu leen yeewul wax naa leen sànq ne am na kilifa yi diine yoo xam ne dama kilifa yi diine yoo xam ne ñu ngi ci LGBT am na kilifa yi diine LGBT la ñuy défendre xool leen lii rek quatre vingt pour cent de musulmans ñaata xalifa ñoo di ci réew mi ngeen di ñaan rek pénaliser góor jigéen góor jigéen nekk assemblée nationale lànk ba nee ni génn ci assemblée ba dàq leen saaga leen toroxal leen xotti kay de sànne kon ñooñu tey kilifa yi fi woy si bu kilifa yi diine weer mat nañ la ñuy doon mat nañ la doon dama ne war na fi mën a jëlee ngóor jigéen waxuma la ak laïcité laïcité bii wax naa leen ko seeni maam ñoo ko signé ak tubaab bi amul benn kilifa diine ko ñemee xot ba tudd lay laïcité waaw laïcité bi c'est la locomotive de Satan waaw ñoom Cheikh Yérim Seck mi ñëpp ci lañ jaar amuñu benn niveau boo xam ne bu sociologique la boo xam ne mën naa defar lu yàq lañ man ñi ay nit lañ xam ne seen moral dafa jeex tàkk tàkk tàkk amuñu éthique amuñu moral ay nit leen ñoo xam ne satan ay seytaane lañ Cheikh Yérim wóor na yàlla ne wóor na yàbbam ci lu mu wér day tëdd xale yu ndaw yi xale yu tuuti day tëdd ak ñoom ba nekkee xale danaan dem ci ci daara ji day dem sëñ bi sëñ bi doo doo wax ci kii dama xooxal weeñ dama xooxal weeñ dama xooxal weeñ yi loolu daan wax man xam naa Cheikh Yérim depuis Louga day fenn te kat mokkal na alxuraan mokkal na alxuraan waaye fu mu gisee xale bu jigéen dootu dem xale yi dañ ko naan làmbal làmbal ween làmbal làmbal si ah. mu ne bàyyi sama loxo bi bàyyi sama loxo bar bar ne ko ci tegg daal di daw yooyu la daan def ah ma defoon naa góor jigéen laa ko tegoon ba mu ñëwee nii fekk ma laa xam ne kii du góor jigéen mais il travaille pour les pour pour le nouvel dafa ñëw pour bokk dafa ñëw pour bokk ci l'église scientologique dafa ñëw bokk ci les bulles dafa ñëw bokk ci les francs dafa ñëw bokk ci le nouvel ordre mondial la mondialisation et la globalisation yéen xamul leen li xew da ngeen di nelaw Cheikh Yérim wërta toog ci ab télé di wax ay gone di ko seetaan mais Youssou Ndour franc la ñoom Farba Ngom ñi ak ñëpp satanique la yi kii Farba kilifa la ci saytaane parce que ay xërëm ci la nekk dialogue national bi ngeen di wax du dëgg sëriñ bu fa yónnee bu fa yónnee franc-maçon la ku fa taxaw franc-maçon wala xamoo lu xew dama ne dialogue national ku ca dem ku ne franc-maçon nga wala muy ku tardé une tête colonisée ku xamut lu xew mais tuute est organisé par l'Occident Khalifa Sall mi deyaati bi yëpp ay tappale lañ billaahi wallahi franc-maçon yi ñoo leen yëkkati waaw nit mën naa ne ci boutique di jaay waaye moomul boutique ba Khalifa Sall mi mi ngi waaye mën naa am du moom waaye li wér te wóor yi la àndal moo ki Barthélemy Diaz ak ñi ngi gis ñëpp soo sont des voyous Barthélemy n'est pas intelligent. C'est un type indiscipliné, mais il n'est pas si intelligent, il n'est pas un patriote. ñoom ñëpp ba ci papam ñoom ñëpp culte franc-maçonnique bi ci la ñu nekk gëmuñu yàlla gëmuñu yonent bi gis nga lii Cheikh Yérim wax il a raison de le dire ngir yee nañu yee nañu gis nga bu ngeen dof dof loo toog di ko xool il va xool les maçons wala ce nouvel ordre mondial cette mondialisation va réduire le peuple sénégalais à sa propre expression xool leen coronavirus xool li ngeen daj dóor yi ne alkaati dóor xool leen bakkan yi ci fàdd te du dara dañuy fen boobu ban la bunt bun jaar pour wàññi askanu Sénégal la woon tey Cheikh Yérim bu taxaw plateau bi wax ko ah wax ko man de mënu ma ndokkeel ko ci te def attention ten bokk jóg nag kan bokk jóg de lii Cheikh wax moo am Macky lan ko santoon def na ko réduire l'explosion réduire les pop euh, euh, réduire l'opposition à sa propre expression def na ko Cheikh Yérim lii mu wax nous allons réduire les population du Sénégal def ko dix pour cent ñi yëpp ñu rey leen projet boobu moo fi nekk parce que cette explosion démographique africaine surtout bu Sénégal bi moo tiital tubaab bi te lii ma leen wax Icon City Icon City bu noppee billaay da nga xam ne golo ci ndigg leen koy yeew daañu leen posé nii ñëpp ngeen jeex tàkk jóg leen xale yi ngeen jëlee fi Macky Sall jóg leen xale yi ngeen jëlee fi Macky Sall lii ma ci ab vidéo laa ko def da ngeen toog di ko déglu ëllëg di ko réccu ne pourtant de Pape Dramé waxoon nañu ko waaye bu ngeen jógul ci ñii jóg leen ci ñii da ngeen ko def Cheikh Ibrahima nag il a le courage de dire mu waxoon la yàlla waxloo ko wala yàlla ma di leen xamal ne Cheikh Ibrahima musta juum musta juum maanaam li projet nouvel ordre mondiale teg loolu la ñu wax Macky Sall bi mu gaañee élection lu mu wax yéen ñëpp ko dégg je travaille pour le nouvelle ordre mondiale ku dib Sénégal yi dégg nga ko fii réew mi jëm du foofu ku fi nekk te gëlëmoo amut amul te réew mi gën a dangereux mi gën a dangereux ci célébrité yi ku ci nangu la doon franc-maçon bokk da nga dem fettal la danañu ko def même Auchan Auchan yi fi nekk plan B la plan B su leen nekk ay ñokk ngeen lànk wala génn leen manifeste ñu rey leen ngeen lànk daanu jaay bitilub dëwlin bitilub dëwlin ci trois mille yéen ñëpp ngeen Auchan yi jënd ko lekk ko dee xool leen li ngeen di def dama ne Auchan Auchan moo gën a garaaw armee française ci biir Sénégal heure boo xam ne jóg na ci éliminer leen éliminer leen Sénégal daa bëgg diw ak ceeb billaay daañu leen posone ci litre dëwlin bu yor trois mille ngir yàlla kan bokku jóg surtout yéen xale yi nun mag ñi jeexal nañ waaye liñ gis ak liñ xam ak suñ expérience mayu leen ngeen toog jóg leen te bu ngeen jógatee takk leen Macky Sall ci buum bu ngeen ko deful du sotti te les forces occultes danoo jaxasoo ak yéen danoo jaxasoo ak yéen Guinée yooyu ñu refoulé dañuy fen prétexte lañ bëgg force occulte yi duggoon jàpp nañ leen ba delloo leen Guinée mais Guinée yi defuñu fi lu tax ñu di leen dañuy fen dañuy protéger nervi yi moo tax ñu def loolu mais tous ces nervi dañ cee dugg si te xamuñu lu xew mais bu ngeen jógul dangeen ngeen torox maa ngi jégalu lu baax a baax nag man la Seydina Ousmane Dramé bu la réveillé conscience yal bu buur yàlla suturaal yal na buur yàlla indi jàmm ci réew mi te kat jàmm jàmm boo ko bëggee da nga jóg dama ne dëgg bu amut jàmm du am jóg leen peace and love jaa ngeen jëf